20 ans d'existence Assane Ndiaye et son label Bawol Production le 27 juillet à l'arène nationale mbokk yi déglul sargal Abdoul Aziz Ndiaye Assane Ndiaye ni 20 ans la ànd ak Abdou Aziz Ndiaye te dara ñaawul moo tax combat bi dox ci diggante Moussa Ndoye ak mbay Guy gi moom laa koy jagle juróomi grand combat beneen bi war a dox ci diggante Cheikh Super Jamono ak armée bu ngéwél 19e édition drapeau Aïda Mbodj koo koy jigéen ju mën góor la lionne de Bawol li gën a rëy ci bés boobu Aïda Mbodj moom lañ koy sargale ci bés boobu la ñuy sargal mbokk yi Badara Gadiaga le bienfaiteur de Grand Dakar original boy town Kéba mi bëgg lamb bëgg lamb jëm ca kanam Assane Ndiaye da ko fay sargal maa béy borom Bambey saltige bu mag bi Assane Ndiaye da koy sargal ci bés bi ci bés boobu mbokk yi Valdo dina fa jàkkaarloo ak Boy Dakar Farouche jàkkaarloo fa ak Kaw Cissé ak ay combat préliminaire yu yéeme sax ndaxte ans du ay jaaxaan Assane Ndiaye ni damaa waxtaan ak amateurs yi ñu ni ma entrée supporter bi def ko 3000 francs annexe loge boisson originale ETDR établissement Touba Darou Rahman Distingo Monix Bet kon gars yi rendez-vous baa ngi noonu bésu delloo njukkal le 27 juillet ci arène nationale ñu ànd ci ak Bawol production combat bi xamul la jaaxaloon mais man waroon na ma jox Balla Gaye ko ko wax naa ko la bétaan ku ma àndal am ndam boo tax tey ndam bi ñëw na sant yàlla bu baax a baax a baax Fatma. ñu gis Balla Gaye dafa bett ñu bëri tey. waaw tey la bis moom demee am na ay journalistes yu bëri yoo xam ne woo na leen si suba nee nañ Tapha ko duma daan ko loolu yàlla doon ñu sant yàlla bu baax a baax di am kontaan bu baax si ndam bi. kër ga ñu incha allah. voilà noonu la demee nag. waaw maa leen fay. tey ñu am benn wax boo waxoon nga ni Balla Gaye yaay njiglaayam. mu confirmé ko keroog ci open press bi tey ñu gis ni da nga koo gis nañ tey lépp liñ ci daj sa digganteeg Balla Gaye waaw waaw ku xamul fu nga jëm da ngay dellu fu nga jóge woon Balla Gaye Balla Gaye suñu suñu suñu la suñu gayen la man xam naa li koy yëngal gis nga mbër boo leen juddoondoo yarandoo nekkandoo ci keppaar ku si nekk ñun dañ daan bëre mbapat ku daan rek sa morom day bëgg a daan ku kuku te loolu loolu roy bu garaaw la waaw di wax Balla Gaye de yàlla na nekk ubbital làmbam tey dama kontaan parce que tey dama ñëw mu jiital ma déglu ma déglu ma jiital ma déglu ma muy nu ma neex di ko ñaanal nag isax nu ma la yàlla na ko yàlla suturaal man nag man nag aw ma dara melu ma leen mais ku ma boole sa bopp ma dugg mais ci combat bi tey ñu ñëw si combat Balla Gaye dafa duma daan ko surprise waaw euh, non man daan naa wax naan ceeli Thiely Thiely ma nga yóbbu fiti cuut Thiely ma nga yóbbu fiti cuut ca ba muy gone mi ngi yóbbu fiti cuut ca ba muy gone Tapha ah. Tine ñemewul Balla Gaye loolu ku xam làmb non dama ne ku xam làmb da nga koy xam Tapha Tine dafa yeex te Balla Gaye ku yeex mënu ko daan Balla Gaye li ngay def day gaaw nga teg ko ci bit bu leer nga mën ko daan mais soo yeexee doo ko daan parce que bëre bi muy bëre day def action sur action voilà te Tapha Tine tamit xam nga lu ma la wax na état indi na doole ñu ngi koy ñaanal waaw waaw loolu ñi ñi xamul man Balla Gaye waxuma mu am lépp boo amee tuuti rek mën na yëngal àdduna tuuti rek barke Serigne Touba xam nga ni Balla Gaye mi pareegul Balla Gaye mi pareegul pareegul mais Thierno Gueye tamit nee na pareegul Maguette Sène na pareegul barke Seydina bi des na mais booy ànd da ngay ànd ak borom jom hmm. sooy ànd da ngay ànd ak ku bañ gàcce te loolu dafa dal Balla Gaye hmm. man li nekk si man dama koy gis si Balla Gaye 2 que parce que nit soo bañee gàcce rek ma yoo tooñ dëgg la voilà te tamit soo bañee gàcce ku la ku la lu la xaare mën na la mën nga am def surprise waaw Balla Gaye 2 fu mu jëm xam nga ko. Balla Gaye 2 fu mu jëm xam nga ko. moom moom moo lamb jaay noonu. waaw. lamb ju neex waaw yow xam nga bi nekk Bawol ñu ne ko Dieye Sène nga xam ne yéen a dëkkandoo Bawol dëkkandoo Dieye Dieye. waa Dieye ñu ngi koy di ko wax lamb noonu la. bu liggéeyee ci kattanu yàlla bu mu entraîné. ne gisu Tapha bi ñu doon wax tey feeñu ci combat Balla dafa mën a bëre macha allah ñàkkul doole yaa ngi dégg mais seulement dafa war gën a liggéey parce que parce que macha allah man Balla deful dara de déedéet man man man kontaan naa mais à 100 pour de. déedéet euh, li mu liggéey dafa dafa gàtt rek mais mais parce que dem na INSEPS après Jeux olympiques yi. ñu génn euh, euh, euh, INSEPS ñëwaat liggéey bi xaw des mais bu liggéey normal song mu njëkk bi la la combat lamb jeexee waaw. waaw a a. Balla Gaye dafa créer surprise. ah Balla Gaye dafa créer surprise. lan mooy loolu. mu bëree. ko. coono mais mais Balla mu jëlal combat boppam yaa ngi dégg Balla bu jëlee combat au sérieux liggéey li mu war a liggéey. da ko daan te liggéey bi des li mu liggéey des na de bien vrai moo daan mais liggéey bi des parce que le premier moo may leen ne temps bi dafa gàtt yaa ngi dégg gàtt na tuuti borom jom la am na xam mais bu ma déggalee ak waxtaan ak staff yëpp semaine bi ñëw mën a entraîné yi parce que dañoo ànd ci oto bi di ñëw ah. waa Guédiawaye yëpp ñëpp topp ko ba mu stop mu ngeen kër Aziz mais tey bal Aziz ak li mu dégg ci làmb jëm ak li mu dégg ci bal ak ak li mu daj ci bal yëpp ne ko euh, euh, Omar mu ne ma ko indi nga ngandi problème tey sa bakkan ngay teg parce que comment ça se va nga tey duñ daanu tey amul daanu waaw. fu mu jëm nee nga Balla dafa des na ko lu bëree tey mu duma Tapha Tine ak Tapha Tine ci ñu gis ne dafa mel ni lim communiqué woon noonu la def. gis nañ nag ñu bari gëmuñu ko woon mais tey Balla dafa ñëwaat beneen Balla Gaye le nouveau Balla Gaye na liggéey rek Omar bu liggéey rek macha allah yaa ngi dégg na liggéey rek parce que li topp si ginnaaw bëri na buy buy bu génnee këram di ñëw ñaata nit ñoo koy topp yaa ngi dégg Omar amatul amatul lu muy créé ci làmb amatul amatul lu muy gagné ci làmb yaa ngi dégg am na lépp yàlla yàlla suma sutal na ko sagal na ko même mu géré plan de carrière yaa ngi dégg donc vraiment euh, di sant yëpp di sant andaw xam nga ñëpp su ma limee di sant soxnaam soxnaam soxnaam tey buri tey dafa ñëw dafa ñëw mel moom mooy bëre yaa ngi dégg waaw bu dafa ñëw mel ni bëre xam nga ay boppam xaar ma seetaan léegi gisoo ma xool ma combat xoolal lii ah, kan seetaanoo lan maa ngi ko doon seetaan lu mu doon lijjanti lu rek après waaw Balla mu def lu loo xamante jafe na ci làmb il l'empereur l'empereur nag ku ko dund bi il est supérieur au roi kon yéen bi ngeen ko waxee te loolu nan ko ndeysaan yéen tey empereur Balla Gaye léegi mooy empereur empereur am na roi am na mais loolu nan nga koy dégg maa ngi moom ñoo ànd mu nekk roi ñoo ànd nekk empereur ah. da nga ne woon Balla bu njëkkee xeex waaw mu dem ci bëre mu mise ci bëre ndax lamb ji ku nekkoon sa mëninu morom ci ngay mën a miser wu pour mën a gagner combat bi lamb na day toll foo xam ne nii en général lamb dafa métti Babacar Balla Gaye numéro 2 lamb yu mu nekkul favori yëpp da koo gagné dañ koo gagné yu nekkul favori yëpp da ko gagné waaw yu mu da koo gagné xam nga lu waral loolu. Balla Gaye numéro 2 day benn mbër moo xam ne ni tey jii pour Tapha Tine mënoon koo daan. li Balla Gaye mën a Tapha Tine da ko ci waroon a jiitu. lu Balla mën a Tapha jiitu wu ko ci. mooy ar at ba arbitre bi Tapha Tine dafa déparé benn affaire boo xam ne indiwut finition bi. mooy bi mu avancé xanaa. waaw bi mu bi mu bi mu xeex bi. waaw waaw ndax Tapha Tine arbitre prix mu cadré Balla Gaye numéro 2. waaye da ngay xool Balla Gaye numéro 2 benn point la def cadrage bi yàqu mooy daa def déplacement latéral. léegi Tapha Tine li mu préparé foofu day yàquwaat mu war a indi lenn li mooy Tapha Tine daa waroon indi garde serré Balla Gaye de dox ci kawam xaajale ko Balla Gaye numéro 2 képp ku bëri moom làng boo duggee ci surface am ndax loxo bii loxo Balla Gaye de bii da koy dugal fii waaw fii waaw léegi nag loolu koy waral ndax da ngay gis Balla Gaye saa yu koree Tapha du taxaw day déplacé wu un pour mën a am pour dóor léegi nag droit Tapha Tine bi nga xam ne nii mooy fa wéeru Tapha Tine Balla Gaye da koy bokkaale du ci liggéey du ci xeex léegi nag Balla Gaye numéro 2 daanul Tapha Tine ci damaa ëpp doole Tapha daanu ko ci damaa dàq bëri Tapha Tine da koo daan ci damay yàq stratégie wu Tapha Tine dugal sama stratégie looloo waral ma ne la Balla Gaye numéro 2 dañ ne moo dàq bëri waaye saasam ci xeex ba la nekk loolu taxul Tapha Tine moo dàq xeex sansam ci bëri ba la nekk pourtant père Khadim Samb li nga wax dane ma lamb ju mel nii ku bëgg a jël xeex beeg bëri bi da ngay ñàkk boo mënee xeex da ngay jël bëri bi boo mënee bëri nga bàyyi nga jël xeex bi sanq dama ko wax amateur dama ko ba may analyser lamb ñu bëri dañ may woo na ma dinañ la vaar xam ma gaaw a vaar ci lamb lamb yàlla bind ku ko xam da nga koy miin waaw te Balla Gaye numéro 2 combat bi préparé wutoon pour uti doole dafa préparé wutoon pour daan Tapha Tine. loolu rek la préparé loolu rek la préparé moom na daan Tapha Tine rek la préparé. léegi looloo waral nga gis Balla Gaye numéro 2 automatiquement bu ñëw dem xooli lan mooy sensu Tapha Tine dafa am loo xam ne ci làmb ku ko Tapha Tine def nga ñàkk làmb mooy Tapha mu bëreeg moom nga bëreeg moom cadration nii mu cadre la saa yoo gisee Balla Gaye 2 saa yi bëreeg Tapha Tine soo gisee maag buur niveau bu ñu doon waxee mooy Tapha chaque jour combat bi na ci nekk mais dañ la koy da ngay automatiquement nga da ngaa far non non damay bëgg Tapha Tine dafa am lu moom ci làmb te action mooy tax mu jot ci Balla Gaye numéro 2 ñaari pexe mooy sama droite bi na dal Tapha Tine bu dalee Tapha Tine automatiquement boobaa Tapha Tine lépp lu nekk ci mental bi day dem ci xeex ba man Tapha Tine ban Balla Gaye masa si bëri boo xoolee Balla Gaye numéro 2 daan na Tapha Tine mais jël risque la daanee Tapha Tine caxal ba ñorut ñorut xamul sax loolu Tapha bi ko Balla Gaye touché ci kaw xel ma yëpp da koo jël man tam da ko yóbbu ca xeex ba Balla Gaye daal koy daan ci suuf non no coup bi Tapha Tine li ma leen di wax kaale ma wax leen leen nga dégg ko man dama yaakaaroon ne bi muy dem bi muy jóge fi Sénégal di dem euh, Côte d'Ivoire amul lu mbër di am ci làmb Sénégal loo mën a tudd Tapha Tine ne mbër ko ëppale amul mais man dama yaakaaroon ne bi muy dem fële question de mental la mantaal bi mooy Tapha Tine naa daan Balla de ci premier signature ba deuxième signature bu 2S bi nga réservé wu boo mu réservé woon tey ji moo moo répété ci géej géew bi ndax liy problème mooy Balla Gaye numéro 2 keroog bi ko Boy Niang daan ñaar benn baat la Boy Niang daanee Balla Gaye 2 mooy bul ma laal dama lay laal fa fos Balla Gaye numéro 2 dafa am ay mëninam te mënin yooyu il faut nit di ko ko faxas Balla Gaye fekk mu ngi nekk à l'aise ci xel ma rek boo ànd xelam mën naa daan ku nekk loolu la. xam nga te jii moo tax bi muy analyser ko bi nee leen man damaa yërëm Tapha bu jël ku Balla Gaye ndax saa yu Tapha Tine xeexee ñàkk na combat bi saa yu ko Balla Gaye tuuti rek ñàkk ko combat bi ndax boobaa Tapha Tine day jël xelam ni yëpp teg ko ci mantaal bi te Balla Gaye numéro de benn pexe la amoon mooy su ma xeexee Tapha ba jàppanteeg moom jël droite am bi ko ba droite bi dootu amati effet ndax Balla Gaye de benn danger la am mooy crochet droite Tapha bi dal ko moo tax chaque jour buy kor day jël lii teg ko fii ba pare dem déplacement côté bii sës fii waaw léegi nga xam ne léegi Tapha Tine pour mu mën a xeex day tàggalikoo léegi nag Balla Gaye de bi mu xeexee ak moom mu xeex bi sax ba mu yëg ne Tapha Tine léegi concentré bi ci xeex bi mu xool tànk yi ñaari tànk yi tolloo dama nga xool Tapha Tine ñaari tànk yi dafa taxaw nii mu jëm fi mu jëm lamb la kenn mën ta jeexal te surtout Samba Xayaan bi li Balla Gaye dee di bëri Eumeu Sène mu ngi fii di xool waaye daam leen lu xew li nit di bañ a wax ma wax la ko ku jël roi des arènes ak ku jël a ki jël l'empereur des arènes waaye lamb bokkuñ ci lu du coow waay